madame la ministre Zahra Iyane Thiam euh, yore wàllu microfinance euh, économie sociale ak solidaire bokk itam ci euh, CEP bu Benno Bokk Yaakaar di secrétariat exécutif permanent ak task force républicaine ñu ngi lay nuyu madame la ministre am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM maa ngi lay fay soxna faatu di la sant di la gërëm yàgg sa groupe bi yëpp ci mm-hmm. invitation bi di nuyu ñi ñuy déglu yëpp Mhm. jërëjëf alors euh, ñu tàmbalee ak wàllu politique daanaka moo gën a fës sax fi mu toll nii ci wàllu actualité euh, gannaaw Yewwi wax nañu itam ne njuumte am na ci liste national bu Benno Bokk Yaakaar muy mbiram euh, ñàkk sàmmonte ak parité ñaari jigéen yu toppante ci 43 44e place lan moo xew ak bennoo mi ñu jàppoon ne xëy na léppam yemb na et aussi coalition bu mag la bu bu wu ba yenn yi xëy na du du mën a dal ci seen kaw. waaw jërëjëf euh, dëgg la keroog xam nga wàllu njuumte. Mhm. ak luy nekk ci list yëpp. mandataire yi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi coalition yebal yi ñoo mhm. ciy wax. Mhm. Euh, loolu la yoon wax donc ñun suñu mandataire ñëw na keroog euh, presse bi sa nataangoo yëpp a fa woon bi ñuy def assemblée générale bi nga xam ne euh, ñun waa département Dakar ak suñu tête de liste muy le maire Alioune Ndoye muy nga xam ne moom mooy maireu Plateau ñi ngi ko doon def pour saafante suñu biir waxante aussi suñu taxawaay ñëw na fa jóge ca commission bi nga xam ne moom lañu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu euh, jël parrainage yi ci wàllu saytu liste yi ñëw yooyu mm-hmm. daal ñuy jébbal lam fa jëlee lam fa jëlee nag bokk na ci list yi nga xam ne ñoom ña ngay dem aussi ca xeex bi muy juróom-ñetti liste am mu saytu leen hmm. wax nañu ne saytu na listu aar wax na ne saytu na liste wàllu saytu na liste yeewi liste yeewi nag ba mu ko saytoo daf cee taxaw hmm. ndax taxaw bi mu ci taxaw mooy seetlu na ne ci liste ndax euh, scrutin national bi ñaari liste la hmm. benn liste bi titulaire la benn liste bi suppléant yi la seey seetlu na ne ci liste titulaire yi bu proportionnel bi euh, matul maanaam juróom fukki nit yeeg ñett ya ca waroon ne juróom fukki nit ak ñaar ñoo ci ne te li indi loolu aussi mooy dafa njëkk am jumte ñoom wàllu ba ñuy dugal liste bi juróom fukki nit ak ñett la ñu dugal waaye dañ ci dugal kenn koo xam ne mënul falu mënul éligible te xam nga code électoral bi buy dafay wax lépp bépp situation boo xam ne am na nan lañ ko war a traité hmm. donc ci wàllu élection législative ku fa bëgg dem foog nga am ñaar fukki at ak juróom au moins ñoom kañu fa defoon amul ñaar ak juróom donc ñu woo mandataire ba ne ko ñëwal dindi kii waaye ba ko dindee lam ca def mooy jël koo xam ne njëkkoon nañ ko def ci liste suppléant bi mu dolliwaat ko ci liste titulaire bi te code électoral bi aussi dafa wax foofu ne nit kenn mënu ko bind ci ñaari list loolu yoon da ko dàq mhm. te bu fekkee ne dañu gis koo xam ne dafa bindu ci ñaari liste fa mu njëkkoon bind la ñuy jàpp feneen fa mu bindoon ñu bind ko fa moom d'abord délai ya passé na ensuite euh, comme ca liste suppléant bi lañ ko njëkkoon bind dañ ko jëlaat rek dugalaat ko foofu daay daal di def ne liste boobu matatu hmm. article L cent soixante dix huit nag moo wax ci list boo xam ne am na lu mel ni lu matul naka la war a mel dafa ne dañ koy dàq mënul ne du bokk ci élection hmm. loolu bi ñu ko suñu mandataire waxee ba léegi gis ngeen ne euh, ñamu concerné weddi wuñ ko ñoom la mu wax la ñu wax mooy ñun suñu bos baaxul hmm. ndax dañ ca jum waa yi tamit seen bos baaxul ma bëgg taxaw nag ci fi nga xam ne loolu la waa Benno Bokk Yaakaar seen bos baaxul hmm. ma bëgg taxaw ci Benno Bokk Yaakaar boobu suñuy liste ak li ñu suñu mandataire wax hmm. li ñu suñu mandataire wax mooy woo nañ ko notifié nañ ko ay erreur matérielle yoo xam ne nañ ko notifié woon waa yi ba ñu mën a soppi te ba ñuy soppi defuñu lu baax dañoo ñëw rek taf yëngal comme niñ koy faral di defee. Hmm. ñun defuñu loolu lépp loo xam ne wax nañ ko lu jaarul ci liste Benno Bokk Yaakaar ndax man ci li mandataire bi Benno Bokk Yaakaar muy le ministre Benoît Sambou wax loolu laay tënku. d'accord kon daal moom waxu leen ne amul am na problème parité am na liste problème mu parité amuñu ko. d'accord. problème mu parité amuñu ko ndax booy seet ci list nationale proportionnelle suppléant yi mm. li fa yoon wax mooy danga fay def juróom fukki nit mm. juróom fukki nit yooyu nga ci war a def ñun def nañu dugal nañ fa ñaar fukk ak juróom jigéen dugal fa ñaar fukk ak juróom góor kon mm. foofu parité amu fa li fa am kay mooy toftalante nañ Mm. te taflante boobu nag aussi code électoral dafa am lum ci wax jurisprudence am lum ca taxawee woon ndax euh, en 2014 amoon nañ même cas bi ak Fandène mm. mais également loi bi xam ne euh, dafa ne ci condition modification yi moom maanaam pièces matérielles yeeg yooyu agencement beeg yooyu su amee dañ koy def bu amul aussi Benno Bokk Yaakaar taxawaayam ci élection yi mooy lépp loo xam ne loolu la yoon wax danañ ko doxe danañ ko waxe mm. ndax ñun ay républicain lañ te mbirum élection suñu bëggee mu yemale ñëpp nañu topp rek li yoon wax waaye nañu ko déggoo nañ ko péncoog mm. ci ruq loolu Benno Bokk Yaakaar daf ko dàq loolu la Alioune jàpp ne sax xëy na moom la ñu war a def ngir dal am ci réew mi jàllale ñëpp mais mais bu Alioune man ñaawlu naa trop proposition yi muy def ndax xam nga bu fekkee danga ne saa yu jumte amee jóge ci benn pàcc rek nañ ko nañu seet nuñ ko diisoo nuñ ko maslaawee mais ñeneen ñi nag ndax ñun élecon yeneen opposition yi nga xam ne déposé nañ seeni liste te dégguñu ci dara muy aar ak keneen ñooñu kon dañ leen di bàyyi ñoom seen xalaat yitteelul kenn mais daal ñi nga xam ne ñoom ñoo war a am baat ci réew mi ñoom la ñu war a bàyyi xel mooy benn Bokk Yaakaar ak Yewwi loolu ñaawteef wax ju ñaaw la. Hmm. ba pare loolu su boobaa du doon doxal yoon bi nga xam ne yoon dafa war a yem ci ñëpp. yoon dafa war a yem ci sénégalais yépp mais bu fekkee ne dañu bëgg jël yoon jéngale ko féetale ko ñenn ñi. Mm-hmm. loolu Benno Bokk Yaakaar àndu ci daf ko dàq. Mm-hmm. te may fàttali ne 2011 lu mel nii dal nañu ak Alioune ndax booba ba ñuy waajal élection yi dëkk bi xawoon yëngatu. suñu président bi wees muy président Ablaye Wade nekkoon fi ne moom dafay dem ranguwaat ñetteelu mandat coow li xaw a bëri bi fi Obasanjo ñëwee ancien président wu Nigéria ànd ak Alioune lam ñu wax mooy yéen waa Bennoo gis Sénégal mi nga xam ne yéen a ngànk ngi xeex bi léegi li leen di proposer mooy ngeen toog bàyyi président Ablaye waat mu wuti beneen candidature bu defee ñaari at jël réew mi. da nga jàpp ne Alioune Tine itam moo nekk ci ginnaaw moo nekkoon ci ginnaaw boobu proposition. moom moo ko defoon waxuma ne dama ko jàpp dama ne moom ak président Obasanjo loolu lañ ñu proposé woon loolu kay ñun ñëpp a ngi fi woon toog léegi nag waa yeewi boobu ba mu amee nit ñi génn nañu wax ci kon yoon surtout lu jëm ci wàllu élection mhm. kenn du ci def compromission maanaam kenn du ci masla nañu xool li yoon wax ñëpp tegu ci yoon en tout cas ñun Benno Bokk Yaakaar benn waxaguñu ne suñu benn liste bon na pour ñu pour mu nekk irrecevable. Mhm. bu loolu amee loolu ma lay wax erreur matérielle boobu ma lay wax ne toflante nañ ci ñaari jigéen ci suñu liste suppléant la nekk. Mhm. lu ci yoon wax danañu taxaw def li yoon wax loolu lañ ñu sant suñu ay leader suñu njiit muy président Macky Sall loolu lañu sant lu yoon wax na ngeen dëppook yoon. yi nag jàpp nañu ne moom euh, Benno xëy na comme ñoo ŋànk nguur gi seen list lu ci mën a ne danañ ko bàyyi mu jàll loolaa waral ñu teel a dànkaafu ne yoon dafa war a def liggéeyam lu ko moy ñoom danañu wàcc ci mbedd mi ngir euh, yoon mën a euh, tëddee njaaxanaay ndax dànqaafu googa yéen jàpp ngeen ko bàyyi ngeen ci xel ak. xëy na yéen a ngi waajal euh, joog a jàmmarloo man dama jàpp ne yi dafa war a fullaal boppam jàpp ne yi dafa war a nawloo boppam ndax saa su ne yi dina wax wax joo xam ne teguwul fenn te toujours bu ñu demee ba ca biir danañ gis ne lañu waxoon dara amu ci ndax benn Yewwi bi ñuy wax ne list Dakar bi baaxul lu ñu waxoon du dañ ne woon administration bee ko def. ñoom ñu dem wëlbati ko bay dëmmante seen biir ne ñoom ñoo ko def te li tax def boobu gën a metti ndax njuumte day am foo gisan ah, ñun mm. ay nit lañ mm. nit ku dul juum nag amul bu fekkoon ne danga ko def ci njuumte boo xam ne tayoo ko mais njuumte benn faf nekk njuumte tayeef ndax ñoom ñoo ne comme mënu kenn mënul bàyyi sa moroom dem nañ ci def ñetti góor rek ñu daal di yóbbu noonu liste bi man sama wàllu bopp nag dama jàpp ne ba ñuy def loolu te ñu jàppoon ne buñ ko defee du mujj fenn coow lay bari waaw ñu xoqatal nit ñi taal réew mi kon dinañ ñu bàyyi mu jàll loolu nag moo gën a graaw ci taxawaay ak ci xalaat surtout ci ku ne man maa gën ñi fi ne ñëpp man maa war a yore réew mi hmm. te dinaa ko jël ci nii mbaa ci ne may wax ne waxaat nañ fi ne fii réew mi balaa vingt heures dina tàkk gis nga yooyu ay dànkaafu élection dina am élection du am dara du ci am élection incha allahu rabbi état bi nga xam ne moo koy organiser hmm. dana ko organiser ca nam ko daan organiser ci jàmm ak salaam ñi bëgg voter dem voter tànn ki ñu bëgg tànn hmm. résultat yi génn ñi gañe dem ñi gañewul dem gën a laxas waaj hmm. ñëw benn ñaareel ba aussi li may wax mooy compromission duñ ko fi def li nga xam ne parce ñun coalition lañ damay bañ nit ñi di ñu di ñu jaawaleeg état. Hmm. état état wu boppam la. la preuve DGE bi nga xam ne mooy def élection yi mais bu doon loolu rek kon ñun suñu mandataire du ñëw ne ah wan nañ ñu lii wan nañu ñu la bu doon tripatouiller rek kon ñun ñu yàq liste nit ña fa ne lu tax listu aar amul problème lu tax listu wallu amul problème bu doon état bi mën na di def lu ko neex foofu da koy def. Hmm. waaye ndokk bi nga xamee ne. ñun loolu du suñu option Benno Bokk Yaakaar dañu ne balaa lenn di xew ñun sart réew mi ñu fi fekk lépp lu koy gën a dëgëral ci loolu lañuy nekk donc ñu sax lëbëje ak salfaañe li ñu tal mooy defaru laxasaayu wàcc xeex ndax bu ñu fàtte ne nag dañu génn ci ay élection matul at mm-hmm. bu doon lëbëje rekk kon fi ñu perte ñu gañe ko. Mhm. mais loolu du suñu taxawaay. d'accord kon waxtu wi li nga xam mhm. ne yoon loolu la wax. Mhm. ñu ngi ñaan ñun waa Benno Bokk Yaakaar. ka ñu topp yoon kese kese kese kenn ku nekk tënku ci. waaw waxtu wi daf ñoo tàmbalee dab madame la ni suñu jàll ci euh, xew-xewu jamono euh, xam ngeen ni jamono yi ñu génn ak euh, ba barki démb ak démb sax ay bakkan yu bari ñu ngi rot ci ay agression ak yeneen i mbir yu ni mel ñu ca bari nag def ko xëy na ngir wut alal agression yi dañuy këf alalu jàmbur euh, ki ne gay nu mujjee faat ca Pikine itam koppar moo ne ca xolu yëf ya am boroom xam-xam yu gis ne ñàkk gi gën a law ci réew mi bokk na ci li ko waral yéen a ne ci nguur gi yow surtout nga yor lu jëm aussi ci wàllu suqali nit ñi ci wàllu am-am muy microfinance économie sociale ak solidaire ndax mën nga ñu wax tey ban plan la état bu Sénégal am ngir xeex ñàkk gi ak lan ngeen di def xëy na ba nit ñi seen dundin gën gën a suqaliku xeex yi aussi di am yëpp waaw jërëjëf jërëjëf Fatou damay wax rek ci xalaat boo xam ne xalaat bu gën a yaatu la mhm. dëgg la xëy na ñàkk mën na indi fitna waaye bu fekkoon ne ñàkk kese kese kese moo waral fitna di am kon àdduna bi yëpp saa suñu xëyee danañu faat bakkenu ñëpp ak euh, ñàkk moom mook dund am sépp la am da di kay day am ñoo xam ne xëy na ñoom ak seeni xalaatu bopp wala ñoom ak seen bonte bopp wala ñoom ak seen xel mu matul parce que lu ne mën na am te comme niñ ko waxee euh, nit ñi état bi bokk na ci mooy mission régalienne am mu mën a sàmm ñi sàmm seeni alal maa ngi profito ci seen antenne bi di jaale ñi nga xam ne ñoom lañ fi faat te wax nga ko également soxna Kiné Gaye ñu ngi jaale seeni mbokk ñoom ñëpp di leen euh, massawu di ñaan suñu boroom ñoom ñi dem mu xare leen àjjana hmm. ak ñi nga xam ne faatu nañ ci accident yeeg lakk-lakk yooyu yu metti la mook àdduna nag ñoo nekk te saa su loolu amee war nañu étudier phénomène yi gën a taxaw bu fekkee ne nag ci sa wàllu laaj comme ni nga ko waxee ne bokk na ci yi ko mën a màndargaal mooy mbirum atal alal hmm. loolu euh, état bi li nga xam ne président Macky si vision mi ngi koy def mooy inclusion maanaam ne ñëpp bokk tey bu ñu demee liggéey xoomu réew mi ba liggéey boobu jur alal dafa ne nañ ko séddale pàcc bu nekk ci réew mi buñ koy séddale nag mën na nekk ci anam yu bari hmm. bi njëkk si séddale bi dafa ne nañu def li ñuy wax équité territoriale maanaam nit ñi di di mën a gis seen bopp ci yenn yi boo bëggee faju mu am structure de santé bu la jegee nga mën a faju say doom mën a dem jàng ci l'école publique bi yow ci sa wàllu bopp ci wàllu yenn secteurs yi comme agriculture ak yooyu nga mën ci am jumtuwaay yoo xam ne dina yombal mbir yi yooyu mu mu indi ci nag ay programme yu mel ni Puma yu mel ni Promoville yu mel ni bourse de sécurité familiale pour que euh, alalu réew mi buñ koy tasaare ku ne mën ci jot. te lool jàpp nga ne mi ngi am njeexital ci dundinu ñi. mi ngi mi ngi am njeexital. Hmm. xëy na nag yëf yi day yaatu bëri ndax bul fàttali ne depuis 2011 dañu hmm. am retard d'investissement bu tar secteur yëpp a nekkoon au rouge te bi ñu ñëwee fallait que fu ne rek nga daal di am loo fa def dans l'immédiat te gis nga da ngay dem dem nañu ba dix ans après ñu am ñaari chock yu metti hmm. bi jiitu mooy corona bi bi ci topp mooy guerre bi am Ukraine hmm. mais loolu benn pàcc la beneen pàcc bi aussi mu ne nañu indi anam yoo xam ne bu ci nit ñi nekkee di liggéey dana gën a dana leen gën a jëriñ mooy économie sociale solidaire boobu nga xam ne ñi ëpp ci réew mi mën nañ jàpp ne daf fekk ci la bokk ndax boo jëlee coopérative yi hmm. jël mutuelle yi jël exploitation familiale yi entreprise yu mag yi sax bu leen neexee mën nañu ci soppite seeni statut ak seeni doxalin nekk ay entreprise sociale maanaam mooy foofu nit ki ngay jël mooy nekk ci lépp xam nga des fois dañ naan système capital bi moom intérêt intérêt bénéfice rek ngay hmm. xool mais fii dañ naan nañu xool nit lan moo gën ci moom lan la soxla hmm. lan la war a am àndandoor nag liggéey liggéey boo xam ne dana gën a oyof te dana gën a mën a dal. lu bëri jërëjëf madame la ministre loolu nag mhm. modèle bu président Macky Sall indi la. Mhm. jërëjëf madame la ministre xëy na du ñàkk yeneen jotaay ñu mën koo gën a yaatal amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM tey ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Anna Thiaw madame la ministre a Iyane Thiam la ñu doon dalal fàttali ni mën nañu ko teeluwaat ci réew mi point com ak réew mi officiel suñu chaîne ci YouTube mi